mu guddal aw fanam lool di wéral ay cëram ba yéene ji mu am si naal yi nga xam ne moom la naal liggéeyal bu sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci toolu Cheikh Fall bii mu def si lu kawe jortam te ànd ko taalibe yëpp di jottali nag ab nuyoo bu bàyyi ko si moom akub siyaar jëm si jëwriñam ju Cheikh Modou Mountakha muy Xaadimu Rasuul di ko ñaanal yàlla sunu borom guddal aw fanam te wéral ay yàlla mottali yéenéem ci liggéey bi nga xam ne mi ngi ko taawu muy liggéey bu mag mu koy liggéeyal maamam de Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ànd ko murid yëpp waaye sëriñ bi di jottali ab nuyoo ak ab siyaar mu jëm si mboolem njabootu sëriñ Touba bi fu ñu fi mën a nekk rek fu ñu féete rek sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen ñaanal ci doole Cheikh Rafal suñu borom kàtt na leen. ba yéene ju am lu mën koo mottali si liggéey bi nga xam ne si lañ nekk di jotali nag ay am nuyo bu sell ak bu siar mu jëm si njabatu bokkam gi di njabootu maam muy ñi nga xam ne ñëpp rek ñoom la bokkal Cheikh Rafa ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne mooy ndigal yi bàyyi ko ko sëñ Touba di rot saa su ne mu ànd koog ñoom di ko jëfee ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi diglee di ñaan yàlla suñu borom. mu téyel ñu ko lu yàgg yàgg yàgg ba nu jëf si lu kawe suñu jot waaye nag sëriñ bi di jottali ay cant ak i ngërëm di ko séeréel mboolem koo xam ne yaa ngi nuy teew cant yoo xam ne am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem jëm si njabootam gi ñi nga xam ne ñoom la ànd liggéey bi muy njabootu boppam gi te bu nu ko waxee mooy ñi mu bokkal Cheikh waaye mooy taalib yi nga xam ne lépp lu taxaw si kër sëriñ bi ñoo ko taxawal sëriñ bi da leen di sant di gërëm di leen ñaanal ba liggéey bii yàlla suñu borom na leen ba lépp nu ko sëriñ bi bëggee nu ma mane ko na te amee tawféexu defe ko ne di nuyu nag mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal jotaay bi ah tàmbalee si sunu kilifa yi nga xam ne ñoo toog sunu ginnaaw waaye di nuyu ah, jëwriñ ñi nga xam ne ñoom lañ boolee lool ci liggéey bii di sàmm warmay Touba ah, ñu gannaaw ba nga xam ne nekk nañ si ba nu ko sëriñ bi sasee kenn ku ne xam na ko. ba ndigal li rotee jóge sëñ Mountakha ñëw si sëriñ bi mu woo njabootam képp muy bunt kër Cheikh Fall yëpp digal leen nett leen ndigalu sëriñ bi digal leen it ñu taxaw temm ngir sëriñ bi ni mu ko bëggee mu amee ko ni ñoom ñëpp nag ñu def si yitte ju mat sëkk kenn ku ne tànn si sa njaboot ña nga ëpp yaakaar si ñoom ci li sëriñ bi bëgg ñu man ko nga yebal boole leen ak njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk ñu àndandoo léggéey bi kon kàddu yi fan koy tàmbalee mooy sant mbooleem ñi nga xam ne andon na ak ñom liggey bi sa njalbeen nga ba fi ñu aksi te xamne ne ni serigne bi bëggoon nañ ko noné kon serigne ba nga leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal suñu borom defal ñu tawfiix ci li suñu kanam lepp jotaay bi nak li waral moy jotaay ndigal la kenn ku ne xamna ni liggey bi di sam war may Touba ba ko tambalé dox ci ab diir jamono yi ñu wess yépp amon nañ ak bo kenn ku ne yëg na ni am na taxaw bu nu taxawoon taxaw boobee nag nu ko woon si sunu coobare dañ ko defoon ngir ndigal loo xam dafa bàyyi ko woon si sëriñ bi jëm si fi noonu la ko waraloon nit mooy sëriñ bi dafa bëggoon gannaaw dox nañ ab diir ñu gis ni am na ay pakk ak i gàllankoor yu si feeñ ak yenn yoo xam ne xaj na lu nu war a defaraat la te jàngat boobee ñu dem ba teg si sunu bët ba xam ko sëriñ bi wax nag ne nan ne tekk nag daal di defaraat liggéey bi jublu si nag sukkandiku si li nga xam ne mooy bëggu sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha mu doon kàddu yoo xam ne walla mu doon bataaxal boo xam ne kenn ku ne gis na ko wane nañ ko fépp sëriñ bi génne ko daal ko yeesal si sëriñ Amdi Fall xamal ko ne ko li ma bëggoon mooy njaboot gi nañu tënku si lii nga xam ne mooy digle yi fi sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bàyyi woon nga xam ne li ma si dolli loolu sëriñ bi wax na ko mu doon wàllu politique ak wàllu Euh, njàngale moo xam ne wuute naag njàngalem Serigne Touba fii si biir dëkk bi loolee ak football loolee bi nga xam ne ndigal loolu agsi na ci sëriñ bi si la sëriñ bi wax nag ni nañu daal di taxaw nag defaat ab seetlu defaat euh, nag ab gëstu si lii nga xam ne moom la bataaxal bi wundu loola doon sababu mu tànnoon ay jëwriñ boole leen ak nun ñii nu toog ay jataay yu yàgg yu bari di say di saraa li nga xam ne moom la sëriñ bi tënkoon ci bataaxal boobee ah génne la nga xam ne loolu la sa sëriñ bi jublu bañ ko saraa ba génne sa lañ sa xalaat ñu delluwaat ci sëriñ bi xamal ko ne ko bataaxal bi kat lii ñu si bind biñ si defee ay waxtaan nii lañ ko déggee nii lañu xalaat doxe noonee sëriñ bi seetaan loolee daal say indiwaat ay jubbanti delloo na ko ñu saytuwaat ko ba mu àgg sax foo xam ne nag sëriñ bi wax na ni nii mu mel noonu rekk laa ko bëggee kon na ngeen daal su jaaju nag takku nag ngir nii nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee gannaaw xam ngeen ko ngeen fas yéene ko jëfe noonee boobee nag la sëriñ bi daal la joxe ndigal njaboot gi ñu defaat ab ab ab ay tànn yoo xam ne ay kuréel yu bari yoo xam ne samp nañ ko kuréel yooyu bañ koy sampit lañ ci jublu woon mooy bëgg ak jàppandal kenn ku ne am wet goo féete kenn ku ne am loo xam ne yaa ko téye su ko defee liggéey bi des na ko mën a séddoo suñ ko séddoo dana jàppandi ndax dana woyof si ñëpp te kenn ku si nekk la nga yor da nga am jotug man ko saytu ba xam deug deug ni ko serigne bi bëggee ñu defe ko nono ci kaw anam yoyu lanu defee nak bureau bo xamanteni bi bii dañ koo sàkk wutal ko njit njit li di serigne bi mu jox ma kaddom ñu sak secrétariat général bo xamanteni bi serigne Assane Fall moo ko jiite ànd koog sëriñ euh, Ousseynou sëriñ Baye Ndam ak serigne mam Cheikh mi tok ak serigne fallu ak serigne mutulam serigne abou sakour ak sëriñ euh, Bada ak sëriñ Abdoulahat ak mbooleem sunu wajur yooyu nga xam ne ñoom dañoo nekk sunu kanam sëriñ bi jox leen secrétariat boobu ñu nekk sunu kanam ànd ak ñun liggéey bi waaye ñu tànn nag yeneen mbooleem li nga xam ne jëm na si wàllu commission luy doxal luy doxal a mbooloo loolee sëriñ Aliou bi nga xam ne moom mooy yore wàllu communication dana si dellu si leeral ko ba ñëpp xam ko waaye li am solo mooy taxaway bu bes, bi nga xamne ne lañ fas djublu serigne bi moko diglé santane ko sakkal ñu yoon wu jaar yalla dogal ñu am tawfiixu ñi nga xamne ne ñooy gendarmerie retraité yi nga xamne ne ñoo ne ñu newoon gendarmerie retraité ñoñu ñu am tawfiixu serigne bi boole nu ak ñom ñu tok ab bir lu mat wer wala ñaari weer lo xamni defal nañ form def nañ ay ay ay ay tagat ci mbolo mi nga xamne moom la ñu jàpp nañ ni mbooloo mu nu tànn la muy ay tànneef ngir jàngal leen wala won leen dëgg-dëgg wala natt leen ci dëgg-dëgg bi nu am ci bataaxal bi lii sëriñ bi bëgg nu liggéey ko ñu dem ba xam ni ñii ba àgg si ñu xam ni ñoom ñu ko sëriñ bi bëggee dëgg-dëgg am nañ yàqin si ne xame dañ ko noonu te am nañ yéene doxee ko noonu ko sëriñ bi bëggee loola moo doon sababu ñu amaan ndigal nag daal di yëkkatiwaat liggéey bi yëkkati googu nag. kenn ku ne xam na ne daje na ak yeesal bu sëriñ bi yeesalaat ndigal li si sëriñ di Fall ak njabootu Cheikh Rafal ndax Cheikh Modou Mountakha mi joxe woon ndigal li moo woote yeesalaat ndigal li daal ñuy gën a jaajaat daal ñuy gën a euh, euh, euh, gën a jaaj ba ñun ñu xam ne sëriñ bi liggéey bi ñor gi egg na ko foo xamante ni fii foofee nun mënuñu ko sax a natt te yaakaar ji mu am si kër Cheikh Rafal moom moo ko xam ba tax mu jël liggéey bi dénk leen ko kon ñun ñu xam ni bu mënta natt sëriñ bi tolluwaayam boobee ñu xam ni daal fu ñor di toll rek liggéey bi ñor na ko ko ñu nit ñu am tawféexu lañ digee woon ak moom ne ko loolu digal daanu ko def loolu tere daanu ko bàyyi lii mënu digal ñu am taw pastéefu fas yéene defe ko noonu nga xam ne noonu la ko bëggee ci kaw noonu liggéey boobu nag moom la fas yéenee tàmbaliwaat incha allah suba di altine ñu fas yéenee tabbiwaat si biir liggéey bi ñu doon bëggoon nag ñun ñi nga xam ne ñoo jóg jëm si sunuy bokki taalibe ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñuy fekkee ñu bëggoon waxtaan ak ñoom laabirante ak ñoom ba am ak ñoom ak déggoo si li sëriñ bi bëgg si dëkk bi ndax sëriñ bi dafa bëgg dëkk bii ba ko sëñ Tuubaa di sos la nga xam ne loolu la loolu la jublu woon bëggoon ko loolee ñu fas yéene sàmm ko waggar ko ba dara du ko ruur muy worma ji nga xam ne kenn ku ne xam na ni Serigne tubaab bu ñu waxee worma rek moom lépp daje na fi moom dëkk bi yelloo na ak loo xam ne maanaam bokkul ak li Serigne Touba daj ngir nu am tawféex gii loola wuute na wala tolloowul ñuy dëkk ci dëkk bi di doxee noo xam ne loolee wuute na ak worma ji nga xam ne moom la moom la dëkk bi yellool sëriñ bi bëgg nag ñu delloowaat njukkal sëñ Touba ci dëkkam bi delloowaat ko ci njabootam gi. buñ nee njabootam gi nag mooy taalibe yi ko yaakaar rek ndax Touba ñi fi nekk ñëpp wut si rek luñ mënta ñàkk te mënaluñ ko seen bopp moo leen fi andi nu daw daw di ko fi wut si ñu xam ne nag fi koy wut si mi ngi fi waaye nag ñu fexe ba mennum ruur wala lenn lu mën a xajamal loolee loolee duñ ko duñu dajeeg moom loolee tax Serigne taxaa bëgg ñu delloo Sëñ Touba njukkal loolu sàmmal ko dëkkam bi sàmmal ko war may dëkk bi waaye sàmmal ko war may njabootu boppam gi loola mooy sababu jóg gi war a jóg daje jiwaat ak suñu bokk yi nga xam ne ñoo bokk pas-pas ndax liñ yéene jiñ ci am ñoom it yéene jooju rek lañ ci am jëluñu suñu bopp teg ko sa kaw te keneen fi suuf ay taalibe lañ yuy jóg war a laabirante ak seen bokki taalibe si li nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi ndax àddina moo demee noo xam ne nit ki léeg mu fàtte wala léeg-léeg mu mu mu xaw a jaxasoo wala léeg melow àddina mën koo gane ko bu boobaa nag day soxla koo xamante ni kii dana nekk si wetam di ko fàttali li nga xam ne moo ñu fi indi te bàyyi ñu fi muy jaamu yàlla te ñun suñu jàmm yàlla mooy topp sëñ Touba rek liggéeyal ko kon incha allahu ci ndigalul sëriñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbenda bàyyi ko si du Modou Mountakha jaar si Cheikh Modou Bachir moom sëñ Abdou Khadir di li di kàddu yoon wi suba incha allah lañ fas yéene tàmbaliwaat liggéey bi gannaaw ba nga xamante ne bii jaar nañ ci yu baree bare yoo xam ne jàpp nañ ne ak tàggat ak wàccaay la. boo xam ne jàpp nañ ni mat na bañ war saa àgg kon ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekkee ñu xam ne seeni bokki taalibe bi rek a jóg di leen fekk si ngir laabirante ak ñoom fitna yëkkati wunu kat euh, fitna yëkkati wunu ñëw ngir xuloo ñëw ñu xeex ñëw ngir jàppante danoo jug ngir laabirante ak suñu bokki taalibe yi ñu bokkal dëkk bi ni nu ko mas a waxee yàgg ko waxee noonu sëriñ bi sant nu dóore sëriñ bi sant nu xaste sëriñ sant nu fitnaal kenn sëriñ bi li nu sant mooy ñu laabireentu ak ñëpp waaye nag nu bàyyi xel ni bëggug sëñ tubaa day am bëggug sëñ tubaa faw day am kon li ñuy ñaan yàlla mooy ñi ñuy fekke te yàlla dogal ñu xaw a juyoo ak bëggug sëriñ bi sëñ tubaa defal nu tawféexu bu nuy egsi rek nu fekk leen ñoom nu tege sa yoon woowee ba du ñu am lenn lu nu war a defar si seen mbir loolu nag ñu ngi koy ñaan xam naa ni sëriñ euh, Bada dana si dellu si ah may wax it si loo xam ne ndigal la ndax kenn ku ne dafa am wàll wuñ la jox léegi si mbir mi nga yor ko di ko saytu dinañ jox kàddu léegi sëriñ sëriñ Bada mu wax ndax moom ñoom ñoo yor wàllu communication waaye may soññi sama bopp nag di soññi waa dëkk bi di soññi suñ bokki taalibe yi ndax dafa am lu jamono jii loo xam ne dañoo daje dafa tolloo ak moom muy wàllu politique ñu gis ni politique moom ñun ñëpp dégg nañ ci kàddu yi Cheikh Modou xaar mu wax ne li ko gën a naqar ci dëkk bi mooy politique àggoon na ci wax ni sax wote yi ñu dëgmal su mënee nekk bu nu wotee ci Touba nañ toxal bureau de vote yi ginnaaw bi mu defalaat tawféex waa dëkk bi xam ne diggante bi xat na Serigne Bass leeral na ko yaakaar naa ñëpp dégg nañ waaye nu bëgg woo nag sunu bokk yi nga xam ne ñoom ñooy def politique muy ñi nga xam ne dañuy bàyyi koo ñooy jóg di ñëw jóge feneen di ñëw ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi te di ay ay ay ay ay homme di war a def ay activité politique ak ñi nga xam ne nag ñoom ay militant lañ nga xam ne ñoom dañ leen di woo ñuy wuy ji ñu bëgg a am ñoom ak déggoo ci lii nga xam ne mooy bëggul sëriñ bi mooy bu nu sañoon newuñu kenn benn homme politique bu mu ñëw kër sëriñam newuñu benn homme politique bu mu ñëw Touba loola sëriñ bi waxu ko digle ko santaane Touba ku bëgg ñëw na nga ñëw ku mu mën a doon ak activité boo mën a def sëriñ bi mi ngi fi boo ko yittewoo boo ñuy mën koo gis waaye ñu ngi sàkku képp kuy ñëw bu fekkee ni politique la yëkkati na nga fexe ba la ngay organiser nga defe ko feneen fu dul Touba bu fekkee da ngaa ñëw nag siyaare sëriñ bi yëkkati la wala waxtaan ceeg sëriñ bi wala ñëw jëfla am loo séq ak sëriñ bi ngeen war koo jëflante muy buntu kër boo mën a tàbbi si Touba te loolu yëkkati la loola de nun am na ak yow benn wax am na ak yow benn xarma yàlla li nga xam ne daal moom lañ bëgg a waggar mooy li jëm si activité politique loolu bokk na si ñi nga xam ne dañuy def ay convoi def ay convoi oto yu bëree bëri ànd ñu taal ay lampe taal ay sirène topp mbedd mi fu ñu romb nit ñu tàccu ñi tàccu ñu yuuxu loola loola day day loola politique la boo xam ne day xajamal li nga xam mooy bëggu sëriñ bi ñi nga xam ne dañuy dajale ci seeni kër walla ci ay barab dajale fa ay militants woo fa ay responsable politique ñu toog fa di fa def ay jataay di waxtaan suñu sañoon ñooñu day buñ soxlaa lu mel noonu dem defe ñu ko foo xam ne ay wuñ ko fa waaye nañ ñu dimbali ba ëtt Tuubaa gii bu fi kenn woote ci sa kër mbaa ci sa pénc mbaa ci sa ruq loo xam ne am ndaje la moo xam ne dañ fay daje di wax politique loolu ñu ngi koy sàkku ci ñi nga xam ne ñoo nekk Tuubaa ñuy sàkkoot ñi nga xam ne dañuy def ay meeting wala ñuy def ay marche wala ay te débat lu jëm si wàllum activité politique ñuy ñaan ngir jëmmi sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha képp ku bëgg a def loolu na ko sëñ Mountakha waxe woon rek Mbacké ngi fi feneen a ngi fi nga bàyyi say militant Mbacké bàyyi sa caravane Mbacké ñëw siyaare sa sëriñ sàkk mu ñaanal la nga delluwaat fekkaat say militant wala sa caravane dem defi sa activité politique foo xam ne kenn du la ko aaye kenn du waaye képp koo xamante ni ki yaa ñëw Euh, jalgati loolu wax dëgg yàlla danañ danañ danañ dikk nag tere la ko te bu boobaa ah teg nañ ci ay daan yoo xam ne yaakaar naa ne duñ ko tudd fii waaye diis na diisaay boo xam ne ndax ñun danañ taxaw temm si li bëggu sëriñ bi mu am te bëggunoo juyoo euh, kenn bu nu sañoon loola du am kon loola maa ngi si soññi mbooleem koo xam ne kii yaa ngi yëngu si politique yaa xam ngay responsable politique nekk si Touba yaa xam ngay responsable politique nekk sa ndakaar wala feneen di ñëw Touba di fi wut Il y a yor ay ay militant fii wala ay mouvement politique ci biir qui bi képp ku ci politique ay affiche ay traag ak yooyu yëpp bëgguñu ko taf bëgguñu ko fi ay son bëgguñu ko def caravane nous ko organiser ay meeting nous ko organiser ay réunion nous sañoon ñi koy def nañ ko defe Nous Mbàkke Bawol loola loola ngi di football na football lu ko naqari la te loolu ko naqari kat nun taalibe yi rek noo koy def si dëkk bii kon ñi ngi ñaan di sàkku si ndaw yi ak mag ñi ndax léeg-léeg nga gis ay mag yi jëm ñoo koy def jël ay terrain aménager ko organiser ko di fa def ay match yooyu ñu ngi sàkku si ñoom ngir jëmmi sëñ Touba bu mënta ñàkk nañ ko defe ci feneen foo xam ne fi aayi wuñ ko fa waaye daal ab taalibe war naa rus sëñ Touba aaye dara si dëkkam bii nga ne ab taalibe laa yaak sëñ Tuubaa rekk laa yaakaar ne maa lant fettirlu di ko fi def kon leneen lu nit ba fu nit bàyyi koo wax la dara lu jëm si yoon wi yow su boobaa amoo loo ko tontu ndax yow yaa njëkk a weddi li nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi yooyu mooy yi nga xam ne mooy yi bi wax ni bokk na ci li ko gën a naqari li si dolli ko mooy njàngale mu wuteeg njàngale mu sëñ Tuubaa kenn ku ne xam na ko loolu mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw di weddi sëriñ bi di weddi njàngaleem sëriñ bi li sëñ tubaa daj ci lislaam li sëñ tubaa daj ci diine fi sëñ tubaa jaar ba samp lii dundam gépp mu mu sacrifié ko ngir jaam ñi am jàmm te ba muy ñaan waxul murit yi waxul ak njabootam mbindeef yëpp la ñaanal la mu liggéey ba mu agsi fii képp ku jàpp ni loolee da ngay ñëw nekk biir tubaa gii di fi dund di fi jariñu ba noppi di dox doxu bëgg koo weddi bëgg koo jalgati di ko jaar nag si suuf muy di influencer ay xale di leen manœuvrer di leen endoctriner si loo xam ne wuute nag njàngalem sëñ Tuubaa ñu di weddi seen i bàyyi di weddi seen i kilifa di weddi seen i ndey loolu képp ku nu dajeel nga def ko bokk na ci faute majeure yi nga xam ne ku ñu gis nga def ko loola incha allahu danañ waxtaan ak yow ba ah loolee incha allahu nga bàyyi ko. yeneen yi nga xam ne nag yëpp sëriñ bi wax na ko sëñ Bada dina ko lim léegi incha allahu yooyu yëpp bokk na ci li sàmm war may Touba ndax nit ñi dañuy bàyyi koo fu ne di ñëw Touba. bu dee jigéen bu jógee ndakaaru di ñëw day muuru sol lu jot ne Touba laa jëm mooy Touba xam na ni lu yiw rek a fi am kay jógee ndakaaru nag war defar boppam ba war mawu ñëw tuubaa dikk bu ne cëpp yem si koo xamante ni kii fii la nekk waaye xotti war ma ja kookee xam na ni jëriñul dara sëñ Touba sëñ Touba ko jëriñ waaye moom njukkalul sëñ Touba loolee nag nañ fexe ba gàcce googu bu ñu dal mukk kon loolu xam naa si bañ a guddal bokk na si kàddu yi nga xam ne moom la ñu bëggoon a jotal li si des dañuy jox euh, sëriñ Bada su ko defee mu jottali kàddu yi mu si war a jottali li si bu noppee sëriñ maam Cheikh moom it jottali kàddu yi ñaanal nu su ko defee nu yeewee ko waaye daal ñëpp xam ni waaj xam ni incha allahu suba war nañoo tàbbiwaat si liggéey bi ñii ñu tànn nag di limu 313 muy jëy sunu lim boobu ci Seex Moodu Muntaxa la bàyyi ko jëm ci jaar ci Sëriñ Basiiru Mbàkke mu jëm Abdu Xaadir moo digle nu tànn trois cent treize muy limu jëysul lam sa jublu nag ñun sax xamuñu ko moom moo ko xam waaye yàlla nu barke bi dal barke maam Cheikh Fall mooy ñii ngeen gis ñu sol tënu yii kenn ku si nekk dañ laa defal ak tàggat fexe ba li sëñ bi bind si téere bi bëgg ko dañ laa tàggat ba ñu jàpp ni yow niko señ bi bëgge déggee nga ko niko señ bi waxee té am nga yéene jëfé ko niko señ bi bëgge ñoy ñi ngeen gis ni ñu taxaw ñom ñoo fas yéene ak suñu bokki talibé ngir laabirante ak ñom ñom nak duñ yor jaasi duñ yor fetal duñ yor yett duñ yor kuur da ñëw ñew niko señ bi bëgge ñu ñaan yalla ñom élan bi ñu joggé yalla nañ fekk élan bu toll nonu si ñiñ jëm ci ñom waye képp ku taxawit bëgg gàllankoor lolé faw danañ taxaw maslaa ak yow ba liñ ko bëggee nu amee ko ni ñoom nag waajal nañ leen ba waajtaay wi ñoom ñi yore groupe d'intervention yi bu ngeen tàbbee si terrain bi ñoom danañ xam ni ñii waajal nañ leen waaye nag ñu xam ne jóguñu ngir yox yox yi du nu maslaa tamit li nga xam ne mooy bëggug sëriñ bi maslaa bi daal mu ngi si jàppalante laabirante ba li sëriñ bëgg mu am ko waaye fetteerul moom fu mu amee te maa lank li sëñ bëgg duma ko def loolee faaw loolee dina am loo xam ne dana tege ci sa kaw te su boobaa wax dëgg yàlla nun teguñu la ko yaa teg sa bopp kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lépp lu si des nag si man la dese waaye kàddu yi moom nu ñu ko bëggee woon dégg nga maam moom matoon na sëkk ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin وعلى آله وصحبه زمير الرضوان والتمكين الحمد لله القائل في محكم تنزيله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ورضي الله عنه ورضي الله عن العبد الخديم محمد بن محمد بن حبيب الله وجه الإله القائل وجه الإله مسكني تبا أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وجعلوا يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماحشني والتعم داري عن الفجور والفشق والباتل في الظهور وجعل عريمنا عريما آمنا وكن بعفسه كفيلا دامنا مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw buñu santé yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala julli ci mustafa khairu khalqillah di fédeli suñu pass pass te diko jaarale ci mouride bi nga xamni moy a Cheikh Ibrahima fallam mom mi nga xamni bamu ba ak Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba ci Mbàkke kadior ila yawmina haza pass pass bobé day gën di deugal kon sunu pass pass ñi ngi koy jaarale ci mouride bobé di mam Cheikh Ibrahima Fall su ko defé nak kàddu yi nga xamni wala ayatul quran bi ñu ubbé ak abiyatul khadimiyya muy mbindum cheikhul xadim lépp rek limi tekki mooy ak li ñu ci jublu mooy wane ni yàlla suñu borom moo njëkk a warmaal pàkkub Serigne Touba bu tedd bi Cheikhul Khadim tam jël xalimaam bind ci yaxal ci fonk goo xam ni fonk na ko dëkk bi ak ni mu li mu bëgg mu mel ko ba ñaan ko boromam ci xasidaam gi ñuy wax Matlabul Fawzayni li nga xam ni it dafa bëgg ñu sàmmal ko ko ci dëkk bi te moytu mu bañ fee am lépp mu bind ko ci téereem bu tedd boobu di Matlabul Fawzayni mooy abiyaat yooyu nga xam ni moom ngeen dégg ma ubbee euh, waxtaan bi ci loolu nag kon loolu li muy tekki mooy ñor googu nga xam ne moom la dëkk bii di Touba ñor Serigne Touba radiyallahu taala am ci la Cheikh mun Mountakha Mbacké sukkandiku ba jël liggéey bu màgg bi dénk ko njabootu maam Cheikh Ibrahima te kenn génn ci ak mboole murid yi nga xam ni ñoom la seen maam àndoon wala seen bàyyee àndoon ak Serigne Touba ci liggéeyam bu màgg boobee loole rek nag la ñu Cheikh Mouhamadou Mountakha bëgg a dimbale ba tax mu jëlaat liggéey bii di sàmm war may tubaa teg ko ci loxo sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbedda ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu jiite ko waaye ñu ànd ko ak ñëpp ci loolu nag ñu leen di xamal ni am na fi ab diir ni ko sëriñ Daam Sooda waxe boo xam ni dafa mel ni dañ ni tekk waaye tekk ji nag tekk la woon ju ne ci kaw waaye ci biir nag ab yëngatu bu bu mat sëkk la àndaloon ndax bi ñu sooboo ci liggéey bi te sëriñ bi sant ñu ko te sàkku ñu def ko ci anam goo xam ni day ànd akuk dal te xat du damm deret du tuuru ñu ciy doxal ba mu yàgg ñu yëg ne am na ñoo xam ne dañoo jug raaxaloo ci liggéey bi te bokkuñu ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko doon def loo dem nañ ba saytu ci ne am na sax carte yi ñu joxoon waa intervention bi ñuy dem ci terrain bi am nañu ko falsifié ba yore ko di ci def loo xam ne bokkut ak li ñu leen sant kon loole nag moo ñu sóoboon ji ñu ñu ñu defoon ab lël ngir jubbantiwaat loolu ak seet nan lañ koy sécuriser ba ñi ciy sóobu te seen yoon nekku ci wala ñu cay def lu méngoowut ak li ñu leen sant ñu xam loole nan lañu koy lijjante loolu nag jural nañu ñu def ab lël boo xam ne def na ab diir ci biir lël boobu nag xool nañ ñoo xamante ni seen xam-xam ci wàllu zahir ci wàllu gii ñu sëriñ bi liggéeyloo dañ caa am xam-xam boo xam ne xaj na ñun amuñu ko ca ñu lëlu ak ñoom ñu jël xam-xam boobee sotti ko ci murit yi nga xam ni mooy ñii sëriñ daam doon wax te ñu sol gili yi taxaw ci suñu ginnaaw euh, di toll ci limub 313 muy limub jaysu ci bi nga xamee ni sëriñ bi moo sàkku ñu tënk ko ci lim boobu ku ne xam ne nag lim boobu am na solo lool ci taarix ñooñu nag nañu xam ni mbooleem li nga xam ne mooy waajtaay yi ñu leen war a waajal waajal nañ leen ko mbubb yi ñu sol tey mu jule yi mooy yi nga xam ne moom la ñuy tàbbee ci biir liggéey bi ànd na ak ay carte yoo xam ni carte yu professionnel la yoo xam ni bokkut ak yi nga xam ni moom la ñu njëkkoon a yor te am ñoo xam ni def nañ ci ay tappale ba yor yu ni mel yii nag waajal nañ ko ci anam boo xam ni wóor nañu ne loolee du ci mën a am kon képp koo xam ni nit dikk na ci yow di liggéey ci warmay Tuubaa ji na nga xam ni tënk nañ ko ci aw doxalin woo xam ni lenn luy nuroo ako jalgati wala lenn luy nuroog lu safaanoog bëggu sëriñ bi loolee doo gis ci jëmmam mu di ko def xàjjale nañ leen ci ay xeeti kuréel yoo xam ne ñenn ñu ci nekk am nañu njiit yoo xam ne ñoo leen jiite diriger leen di leen teg ci aw yoon woo xam ni duñu ko génn mukk ñoom ñooñu it waajal nañ leen ñoom li leen jiite seen waajtaayu bopp woo xam ni waajtaayu kawe kon ci ñoom la ñuy tàmbalee muy lim bii di jëysun di 313 bi nga xam ne ñoom la ñu yabal ci terrain bi ngir ñu jëfandikoo li nga xam ni mooy doxalin yi ñu bëgg ñu doxale ko ba liggéey bi dëppoo ak ni sëriñ bi bëggee ci ñoom ñooñu nag amul ci kenn koo xam ne sañ naa génn doxalin woowu waajal nañ tamit ku ci ko génn ci doxalin woowu la nga xam ne moo ci war a tege ci sa kaw ci ay daan kon ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi jaboote muy sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbend te ñu teewal ko ci jëmmi dëkk Touba bi nga xam ne kenn ku ne ci ñoom dafa mel ni jëmmi sëriñ bi moo waroon a jub demal boppam ci dëkk bi saytul ko li ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha di liggéeyloo nga wuutu ko ca kon képp koo xam ne jug nga dugg ci biir dëkk bi bokk ci lim bii ñu tànn te tàggat leen na nga xam ne jëmmi sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbend moom nga porté kon nanga xam bu baax a baax ca la nga xam ne moom lañ la tàggat te nargan la ca nga fas yéene nekk te bu ko génn benn yoon leen la ca dolli ko muy ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal dëkk bi ñuy taalibe Serigne Touba yi nga xam ne ñu nag ñoom ñoo yam képp ci dëkk bi yaakaar Serigne Touba te bëgguñu lu dul ngërëmul Serigne Touba ñun ñëpp ni ñu ko bëggee di ko ñoom ñooñ noonu la ñu fekk muy seen itte ñu di ko wut ñooñe bi mi ngi leen di tàllal loxo di leen xamal ne liggéey bii ñun ñëpp ñoo ko seet dafa mënta ñak nak am ñenn ñoo xamni ñom ñoy jitu ni Serigne sali waxa won ne dëkk bi di Touba de amul kenn ko xamni jàpp na ni kenn du fi nekk di fi def lo xamni lu neexu Serigne bi la te diko def ci sak tayal sak tayef kon day mel ni ki ñu umpale rek wala ñu ñak xam la ndax dëkk bi nga xamni Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu mu tedd mi ngi fi teud ak murid yi nga xamni ñom la sol ci seen jëm ay ngeureum ak leer bañu fess del jàpp na ni ko manon sax do fi dox sa sa tànk waye bu fi amee sax da ngay ram defe naa nag loolu ñun ñii yaakaar Serigne Touba te ñooy ñi dëkkee dëkk bi kon ku ci def loo xam ne wuute na ak loolu njuumte moo la ko yóbbee waaye du sax tayeef kon am di faal moom Serigne Modou Mbenda mi ngi tàllal loxo mbooleem ñi nga xam ne ñoo dëkkee dëkk bi di leen xamal ne liggéey bii ko Serigne bii liggéeyloo mi ngi ciy woo ñëpp te bëgg ñu àndandoo doxal ko ñun ñëpp su ko defee nag am na commission yoo xam ne ñoom la ñu tënk. ngir ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoom ñoo taawu liggéey bi te nekk ci kanam sëriñ daam dikk na ci dañ koy gën a leeralaat rek ndax sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbend mi nga xam ni moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall moo nekkal boppam président bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ngir itteel bu mu ko itteel ak ñor gu mu ko ñor jël nag sëriñ daam sooda mii ci sama càmmoñ def ko mooy ki nga xam ne moom moo ko jëmmal ci liggéey bi dox digganteem ak sëriñ bi ci la nga xam ne mooy ay yitteem ci lu jëm ci liggéey bi ak digganteem ak maanaam murid yi nga xam ni mooy ñi mu dénk liggéey bi te ñooña ñam ca jiital mooy seen kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci buntu kër doomi maam Cheikh Ibrahima Fall yi di ay xulafaa ak mbooleem cheikh yi nga xam ne ñoo àndoon ak suñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñooñee ñoo tànn seeni ndaw yeleen doy andi leen ñoom lañu ñu boole tënk ko muy lim bii nga xam ne ci lañu tànn ba mu mat 313 yooyu sëriñ bi nag bi mu nekk jëlee si daam soodo moomu doxale ko ci loolu dafa mom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mu nek secrétaire bi nga xamni moy jité secrétariat bi mu ànd ak Serigne Ousseynou Fall rakam ak Serigne Baye Ndam Fall mom soxna ben Fallu ak serigne Mortala Fall ak sunu ak Serigne mam Cheikh Fall mom Baye Serigne Assane Fall ak Serigne mortala Fall mom Serigne Abdou Chakour Fall ak Serigne Fallou Fall mom serigne Aliou Fall Mbawor ak Serigne abdou Ahad Fall mom serigne Modou mam Fall mom mam Saliou Fall. ak man seen ndongo si ànd ci seen biir ci liggéey bi di batafaal mu sëñ daam Sadio Daaru Xafoor ñooñu ñooy waa secrétariat bi su ko defee tam am na commission boo xam ne mooy wàllu ñooy trésorier yi ñoo yore wàllu xaalis loolu sëriñ Amdi Fall moom sëñ Talla Modou Mbenda moo ca nekk ak sëriñ Bassirou Fall moom sëñ Cheikh Fall Cokke moom sëñ Mbacke Fall ak sëñ Fallou Fall moom sëñ Talla Yacine yi ci des nag day mel ni dañuy tudd rek boppu commission yi mu mel ne ñetteelu commission bi kon moy commission bi nga xamni moy communication man mi di wax ak man ma ca nek ak ñima ko andal ñep juroomelu commission bi moy commission supervision bi nga xamni serigne abdou Ahad Fall mom moko jité mu daru xafoo juroom benneelu commission bi euh moy commission moy hmm? commission coordination groupe intervention été Serigne Bachirou Fall mom Serigne Cheikh Fall Khady Gueye nekk ca juróom-ñaareelu commission bi mooy commission médiation ak relation extérieure Baye Ndam Fall moom soxna Mbène ak sëñ Mor Fall moom moo ko jiite juróom-ñetteelu commission bi mooy commission coordination kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi nga xam ni lépp loo xam ni ab lijjanti la bu fi indi ñoom ñoo koy saytu kooku Cheikh Moustapha Fall moom sëñ Fallu Fatikan moo ko jiite ak ñamu àndal juróom-ñeenteelu commission bi mooy commission discipline boobu it man nañ ni suñu kilifa yu mag yi ñëpp a nga ca biir Cheikh Baye Fall ma nga ca Baye Ndam Soxna nga ak mboolem nag ñi nga xam ni ñoom ñooy kilifa yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo ngànk liggéey bi fukkeelu euh, commission bi mooy conseil des sages conseil des sages mooy mboolem koo xam ne ab xalifa nga ci kër maam Cheikh Ibra ab xalifa ci kër ci euh, seex si àndoon suñu maam Cheikh yaa ngi ci biir biir lool ak nag suñu doom yi nga xam ni ay doom lañ yoo xam ne seenub taxawaay kenn ku ne xam na ne mate na ko sëkk bu ñu tuddee ci biir kër gi ku mel ne sëñ Fallou Fall moom sëñ Mbacke Fall moom sëñ Modou Mbend ca la bokk ak ñu mel ni moom ñi mu ko séqal ñu mel ni sëñ Fallou Modou Aminta sëñ Moustapha Mbar ak ñooñu ñëpp rek ñi ngi ci biir ay sëriñ Cheikh Fall digal mbooloo mu yaatu la waaye bu ñu ci tënkee ñooñu rek danañ mën a yóbbaale ña ca des ak sëriñ Fallou Fall Cheikh sëñ Cheikh Fall ñëpp ñu ngi ci biir ba ci sëñ Cheikh damaa bëgg rek ñoom ñu xam ne ñoom seen mag yooyu ak ñenn ñi rek ñoo yóbbaale ñi ci des waaw juróom fukki fukkeelu commission bi ak benn mooy commission bi nga xam ni ñooy wàllu ñooy yore wàllu logistique waaw te bàyyi ndaam soxna mbenn jiite ko lu fi nikk ci lu fi nekk ci oto yi nga xamante ni bii Cheikh mun Mountakha joxoon jox nañu ko bi nga xamee ne moom liggéey bii loolu liñ ciy déggee mooy liggéey bi moom mooy ki ci jiitu ñëpp moo ci man ñëpp itteel na ko te ñor na ko ndax fi bàyyi maamam ju baax ja tegoon dëkk bii di Touba foofee rek la la dëkk bi mi ngi ciy def li mu man lépp ndax la ci jiitu mooy xam ni lii moo yell ci dëkk bi mu taxaw temm ci ñu taxawoo nii dëkk bi yëmut ca loola nag alalam mooy jiitu ci liggéey bii jël na ñeenti oto jox ñu ko boole ñu ko Cheikh Mouhamadoul Bachir moom it ñu ngi koy ñaanal sama borom sàmm ko te defal ko wér ndax taxawaayam ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu sëriñ bi di liggéeyloo seetaan ñu benn yoon ànd na ko ak ñun guddi ak bëccëg suba ak ngoon lépp lu ñu jaaxal danañu delloo ci ak dal lijjanti li ñu ko ci am xel ak xam-xam bu mat sëkk kon yàlla na ko yàlla sàmm te aar barke Cheikhul Khadim kon Cheikh mun Muntaxa moomu oto yooyu muy joxoon ak mboolem matériel boo xam ne dafa aju ci biir war Touba commission logistique ñoom ñoo ko yore sëñ sëñ sëñ ni ma ko waxee léegi sëñ Baye Ndaam moom sëñ Mor Talla Fall jiite ko ak sëñ Fallou Ndiam muy sëñ Fallou moom sëñ Mbacke Fall moom sëñ Modou Mbène waaw bu ko defee am na beneen commission boo xam ne dama ko jëloon mooy commission mooy ñi nga xam ne rek ñooy wàllu commissaire au compte loolu sëñ Fallou Mbawar la ak sëriñ Ousseynou Fall nga xam ne seen xam-xam màcc la jëm ci loolu ñoom ñoo ci nekk ak ñaa nga xam ne ñoom lañu koy àndal. kon loolu mooy li nga xam ni moom lañ doon leeral ci wàllu commission yi su ko defee nag kon ñuy delluwaat rek di soññaat suñu bopp bu baax a baax di soññ itam mboolem population bi nga xam ne ñoo bokk dëkk-dëkk bi ñu xam ni li ñu sëriñ bi liggéeyloo mënuñu koo def mukk te ànduñu ko ak ñoom mboolem seex yi nga xam ne ñoo àndoon ak sunu maam Cheikh Ibrahima ca ëttub sëriñ Touba radiyallahu taala anhu ba di sàkku ngërëm ñom ñep Serigne Amdi Fall mom serigne Modou Mbène mi ngi leen di talal loxo li leen xamal ne ñoo bokk liggey bi mi ngi leen ci baye xel di ci baye xel seenu njabot ak mbollem imam yi ak euh délégué de quartier yi chef de quartier yi mbollem ñi jité mbota yi ñu kenn nañu xam ne daal dëkkub Serigne Touba bi kenn ko ne ci ñun gëm nga di bo faato buñ ne la jey ci sa bammel ya ngi fay yaakaar Serigne Touba te gëm nga ni dana la fa fek kon li nga xamni mom lañ koy warmaale ci dëkkam bi no nga ci fassiyene yéene sóobu suba insha allahu rabbi te fës ko yéene ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ñëpp bàyyiwuñu kenn su ko defee nag li ñuy daanale suñu kàddu foofu mooy ñu xam ni seytaane dafay koo xam ni ku bari doole la te yàq ak yàqale rek moom mooy liggéeyam bañ na ko ba Sëriñ Tuubaa dane laa taamunu makaida shaytaani qabla firaaxi ruuxi di abdaani nee na li fekk suñu ruu yi mi ngi ànd ak suñu jëmm yii di suñu yàpp yaram bu ñu naagu ci ne mën nañoo mucc ci saytaane lam ca wax nag moom dafa wax ne inni jaxaltullaha rabbi yaxul bayni wa baynahu isaliya yashul nee na man nag sama borom laa jël doxale ko sama diggante ak moom segam moom moomee nag moom moo koy muslu te mucc ca bu yàgg rawatina ñun ñi nga xam ni ay nit ci ordinaire képp lañ ndax nee na li annahu kalbun alayka salata mawlaaka fastain bihi wa axlata nee na saytaane dafa mel ne ab xaj la boo xam ne yàlla moo ko jël xiir ko ci jëmm ji kon ci moom sunu borom rek lañ ci mën a musloo ba mën caa mucc loolu nag li ma ci jublu rek mooy ñu xam ni lii sëriñ bi bëgg lu mën a am la waaye bu ñu dé bu ñu bu ñu toppee seytaane rek dañuy galfan ba jàpp ni dafa mënta nekk sëriñ li waxoon na ko dani seytaane bu bëggee yàqal murit bi ci digganteem ak sëriñ bi du ko jaar ci xeeb sëriñ bi wala wàcc darajey sëriñ bi waaye nee na fi mu koy jaare mooy yëkkati darajey sëriñ bi su sëriñ bi santaane nga ni sëriñ bi kat nañ ko bàyyi muy sëriñ bi te ñun ñu di donga li mu santaane moom rek moo ko man nee na bu boobaa man lay yàqal ci mu teg ca misaal ne mi ngi mel ni bu sëriñ bi ne nañu dem ca ginnaaw kër ga buub ko ña jug jëm ca bari tax nga ne jëlut may dem ndax ñay dem danañ ko mën a def kon nee na nga jàpp ni ëmmoo ca dara ndax soo demee la nga cay def mooy la nga ca am kon ñun ñëpp muy ñu ñii ko sëriñ bi teg ci suñu loxo ak ñi dëkke dëkk bi ñoo ngi ànd fas yéene wax ba waxaaleel waa dëkk bi sax ñu fës yéene àndandoo ñu ñëpp jug taxaw temm ci li sëriñ bi bëgg ñu fexe ba mu am ndax sëriñ bi li mu bëgg lépp ñaan na ko boromam te boromam defal na ko kon yal nañu sama borom defal tawfeex ak ndimbal ba ñun ñu doon ñi nga xam ne la sëriñ bi bëgg ci suñu jëmm yi lay jaare wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, sant jëkk sant sëriñ bi bu ñu defal ndax jotaay bii ñu toog day ñi nga xam ne ñoom la suñu ñoom la sëriñ bi dénk wàllu yoon ci dëkk bi ñu ngi toog ci suñu biir xëy na sax am na ñu leen ràññewut waaye ñoom dañoo am ndigal ndax Touba dëkk bu spécial la boo jaaree si buntu commissariat bi da ngay gis ñu bind commissariat spécial de Touba loolu moo doon bu sëriñ bi ndigal lii ba mu koy jox dafa woo mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifa yi jiite wàllu sécurité si dëkk bi jox leen ndigal nu ànd ak ñun liggéey bii mu doon àndandoo boo xamante ne bii moom bañ ko tàmbalee ba léegi lépp parfait ba tax na lépp lu ñuy def dana fas yéene ànd boobu ñoom muy lii nga xam ne moom lañ fas yéene tàbbiwaat ci liggéey bii loolee digtal nañ ko ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ci wàllu police ak gendarmerie ba ñu xam ko ba ci seeni kilifa ña nga xam ne ñoom ñoo leen di ñoom ñëpp ba xam ko ba am nañ yéene am pas-pasu ànd ak ñun ci liggéey bi kon ñuy jottali ay cant ak i ngërëm ci turu sëriñ bi. jëm si ñooñu nga xam ne ñooy force de sécurité yi nekk fii fi Touba te sax si lii nga xam ne mooy loolu sëriñ bi seen ndaw teew na fi wax naa ko léegi euh, ñuy doole di sant ak gërëm bi ki nga xam ne moom moom la suñu borom teg dëkk bi si loxoom muy maire Touba di Abdou Lahad Ka kenn ku ne xam ne ni sëriñ bi keroog ba muy jox oto yii dafa wax ni li jëm si carburant bu koy doxal boole naa leen ak Serigne Abdoulaye Ka moom mu jaayante ni weer wu jot danañu jox junniy litre si gasoil ngir ñu di ko def si oto yi di mën a liggéey liggéey lu ko jiitu yi am na lu bari loo xam ne séqoon nañ ko si ab liggéey tàmbali woon ko tey marché bee bari yi ñu fa tàmbali woon incha allah fas nañ ko yéene àggale ak mbooleem bërëb yi nga xam ne war nañ faa intervenir di ànd si ak ñoom ñu am yéene defar benn. partenariat boo xam ne waxum sax partenariat waaye ànd loolu la boo xam ne dañ koy ànd seen diggante bi nga xam ne mooy bàyyi ko seen Tuubaa tey defar dëkk bi xam naa li si dolliku mooy ma fàttali liggéey bi dafa am ñaari ñaari ñaari pàcc dafa am benn bi nga xam ne mooy wàllu sécurité kenn ku ne xam na ni war ma ji li si ëpp sécurité la waaye li nga xam ne moom la sàmm am beneen pàcc boo xam ne na moom euh, dafa jëm si wàllu ñoŋal bërëb yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi mooy leeral mbedd yi leeral bërëb yi nga xam ne ñoom ñoom dañ koo fatt wala dañ see defe jëfandikoo noo xam ne sago dañ see topp seen sago te sëriñ bi tàmbali woon ko sa gaar ba muy ab joxoñ boo xam ne bii defoon na ko ñu tàmbali woon ko sa gaar ba muy toj dañ tojoon gaar ba jàll ba si corniche ba si marché Ocass loolu day liggéey boo xam ne dafa nekk si dafa bokk si sàmm war mi Touba te sëriñ bi bàyyi ko si suñu loxo ba léegi mu doon loo xam ne waruñu ko bàyyi ginnaaw waruñu ko fàtte xam naa li si mujj mooy garab yi nga xam ne doon nañ ko jëmbat muy reboisement bii ñu doon def si corniche bi gannaaw ba ñu dindee garab yi ñu jëmbat ñu defaat ay xay sàkk woon nañ sax si ñi nga xam ne ñoo dëkk uuf garab yi ñu farlu si di ko di ko arrosé ak di ko toppatoo waaye ñàkkul yenn yoo xam ne yoo xam ne sàggante tax na mu mu loru yooyee bokk na si li fa fas yéene jëkk saafara bu ñu jugaatee tàbb si liggéey bi bokk na si nag li nga xam ne moom la ñu jëkkee mooy wàllu marché yi ndax sëriñ bi marché yi dasee am dasee amoon ak jaaxle lool yaakaar naa ne sababu liggéey bii bari na si loo xam ne si foofu la bàyyi ko muy occupation anarchique boo xam ne dañ ko def ñu ñu marché yi ñu nekk sa anam yoo xam ne day bu jiyee amee ñi nga xam ne ñooy wallu du ñu am sax fu ñu jaar ba wall loola moo doon sababu sëriñ bi digle woon ñu yaatal bërëb yooyu tàmbali woon nañ ko si marché Ocass incha allahu daanu ko ndax ñoom am nañu yéene ànd ak ñun dox googu yi ñoom waa marché Ocass muy marchand ambulant ak commerçant yi ba am na jéego yi si doxal fa sëñ ko yéene ànd ak ñoom wéyal marché maam Seynabou Ndiaye bële nga xam ne dafa ñoom dañoo dellu sax si kaw tali yi fi camion yi di jaar nga xam ne camion bu dérapé wala oto bu dérapé def loraange ju rëy rëy sëriñ bi bëgg nag ñu bañ a dee xaar ba ji yi am ñu topp si di wax waaye ñu jéem a fexe ba euh, fagandiku si loolee loola mooy saw sëñ bi wax ne fépp fu danger mën a am nañu jéem a taxaw tem si faggan fa euh, faggandiku sa loola ba bu mënta ñàkkit buy am doon loo xam ne lu oyof lay doon kon ñu xam ne marché yi déguerpissement yi nga xam ne moom lañ doon def incha allah dañ ko fas yéene mooy pàcc bi si wàllu wormay Touba ñu teg si nag lii nga xam ne mooy tere sëriñ bi jëm si wàllu euh, doxalin yi nga xam ne nit ñaa koy dox wala melokaan yi nga xam ne dama koy tënk rek si ñetti euh, benn minute su ko defee ñu xam ko activité politique loolu war naa ko sëriñ bi dafa wax ni bokk na si li ko gën a naqari leeraloon naa ne kuy yëngu si politique na ko sëñ bi waxee woon na nga dem foo xam ne fi kenn du la ko ay waaye Touba bëgguñu fi caravane bëgguñu fi meeting bëgguñu fi ay réunion bëgguñu fi ay tàccu nit ñi topp di def ay kii yooyu yëpp sëriñ bi wax na ni képp ku ko bëgg a def na nga ko dimbali ngir jëmi sëñ Touba defe ñu ko feneen loolu tënk naa beneen bi si topp bokk na si loolu nag ku ko def moom daan jël ñu di ko wax beneen bi si topp mooy. nit eh, nit ñi di toggoo jigéen ñi nit nit ñi di toggoo jigéen ñi si jakartaay loolu ñaaw na lool sëriñ bi nee na image bi ñaaw la mm, loola nañ ko aaye ñu ngi sàkku ña koy def ñu bàyyi ko te ñiy togg góor it nañ xam ne ñuy togg ndax eh, agression yu bari léegi mi ngi am si nit ki jakartaay togg ki si ginnaaw di këf yëfi jàmbur ñuy daw ba loola naxsaay yooyu yëpp nag yéen ñi yor jakartaay yi na ngeen gën a fagaru ba kuy yàq tàbbi seen biir loolee bookee bañ a am ndam li si doon lu mooy euh, yokku yokku karaw loolu moom seen kilifa yi aay nañ ko ba tàyyi lu jëm ci wàllu ay mèche ay greffage loolu tamit bokk na si li nga xam ne ñu ngi ñaan sox suñu bokk soxna yi ñu tàqali ko ak moom ndax ku bëggug sëriñ bi te ñoom lu sëriñ bi bëgg rek si lañ war a nekk ñu ngi sàkk ñu bàyyi ko euh, yëre yoo xam ne dañu koy fànt nag ba mu weesu ab boobu waxuñu fant boo xam ne bii ak suñu si boobu waaye yëre buñ fant ba mu weesu óobu nga xam ne say pooj day feeñ loolu dañ koy aaye kun ko gis danañ la teg si danañ la soññi ngir nga bàyyi ko ñiy jëfandikoo drogue ku ñu si jàpp si loolu danañ la jëmbal gendarmerie wala police ñoom ñu def li war si yow loolu ñeel na tamit ñi nga xam ne jàpp nañ leen si xeeti yamba ak ñi nga xam ne dañ leen jàpp si ak càcc sàcc boo xam ne da ngay beru di ko def wala da ngaa am ñoo àndal di ko def wala da ngaa jëfandikoo ay gànnaay wala ay pexe loolu la ñun dana la jàpp teg la ci loxo ñi nga xam ne ñooy police wala gendarmerie nga su ko defee ñoom ñu def si la sawar li jëm si wàllu tox cigarette ak póol kon si jàpp am na daan yoo xam ne daañu la ko teg su ko defee daan yooyu moom da nga ko def li jëm si wàllu xërëm xërëm la wax loolu am na am na lu ci defoon léegi ak leeral xërëm mooy ñuy jëfandikoo loo xam ne l'islam nanguwu ko lu xaram la lu mel ne di jëfandikoo ay ay ay ay rek jëfandikoo ay xeet yoo xam ne yu xaram la xam nañ ko loolu nag bokkul ak ñun lii xam ñi nga xam ne dañuy yor seen i xaadim di xaadim wala yor seen ay seen i cumb fa xeet yooyu loolu fii lañ ko fekk ñëpp ko yittewoo di ko jariñoo loolu waxuñu ko waaye ku fi indi loo xam ne daal lu xaram la lu mel ne ay jàll nga ki fétichisme daal loolu xam nañ ko ñu koy def xam nañ ko loola dañ koy aaye comme si jàpp dañ ne teg daan yoo xam ne wax yàlla dina xaw ñi ñiy jëfandikoo à sàngara loolu xam ngeen naka jekk des ko fi aaye ñi nga xam ne nii dañuy euh, dañuy seen bopp di ay góor wala ñuy sëy si seen biir di ay góor muy homosexualité loolu xam nañ ko ñoo loolu moom daje nañu moom fii ay loolu moom ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu mu bu mu amati ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo am tëgg tëgg mi dafa bokk ci sëñ bi tere muy tëgg sabar ak tëgg kii nag ni ko sëñ bi waxee woon cant yi nga xam ne dañ koy def di tëgg ay xiin loolu bu ñu sañoon ñëpp ñu bàyyi ko te euh, jublu sëñ sëñ ñu bëgg rawatina la xew yi xew yi nga xam ne bu amee dañuy tëgg ay bool di tëgg ay ndënd ñii di tëgg ay bongo yooyu yëpp wax dëgg yàlla fu nu ko fekk bokk na si li nga xam ne ñu ngi koy tere bokk na si li ñuy tere mooy col bu yiwadi col bu yiwadi suñu ko waxee mooy col bu gàtt col bu yaraax loola ñi ngi sàkku képp koo xamante ne kii yaa ngi si loolu nga bàyyi ko wan ko ginnaaw parce que sol sol bu yiw di muuru ah, muy góor ak jigéen ndax col bu yiw di moom góor dina ko def jigéen dina ko def loola ñu koy sàkku si ñëpp ah, li nga xam ne mooy ah, ja jaay sa bopp si wàllu jigéen muy muy na dama yàlla baal lu ñaaw sa bon loolu loolu ñu koy ñu di sàkku kenn bañ ko kenn bañ koo defati li nga xam ne mooy euh, ñàkke war ma njabootug sëñ tubaa gi ñàkke war ma njabootug sëñ tubaa gi loola si nun lay tàmbalee nun nun xalaatuñoo ñàkke war ma njabootug sëñ tubaa loolu xalaatuñu mooy ku nu dajeel wala ku nu giseel nga bokk si njabootu sëñ tubaa ñun lenn rek lañ seet ak yow mooy war ma kon du ñu nangu kenn jóge feneen di ñëw bëgg a yàq wala nga bëgg a jaxase war may bëgg suufeel wala nga bëgg a jalgati war ma ñooñu nga xam ne warloon nañ ko ak Serigne Touba loolu bokk na si li ñuy aaye hmm? waaw ah, occupation voie publique moom lañ waxoon ñuy wax si wàllu marché yi ak euh, wàllu corniche bi ndax corniche bi dañ fi jaaraat defar ko te fi jóg nag mooy di jaar ci corniche li si sëriñ bi jublu woon mu leer nañ ñi lépp lu fi ne di wuute bokkul ak loola ñu dindiwaat ko ba mu set bi kon ñi ngi ñaan mboolem ko tegaat dara si corniche bi wala nga defaat ko loo wuute def nga gaaw dindi ko ndax incha allah bu mu fa ñëwee daana ko dindi ñi ngi jeexal nag suñu kàddu si di sant ñii nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar lool muy waa presse ñii di tas xibaar yi di jaar si sëriñ Fallou Gala Sylla mii nga xam ne si moom la loolu jaar ak euh, seen euh, euh, kuréel yi nga xam ne yéen a ko taxaw tem ngir lépp luy xibaar bu nu war a jot ci liggéey bii ngeen joxe ko sa na xam ne noonu la wàcce sa na mu gën a jube ak na mu gën a rafet ndax du xibaar mën naa defar mën naa yàq waaye yéen yàq dong defar dong mooy seen yitte defar mooy seen bëgg ndax yitte yii ñu am si liggéey Sëriñ Tuubaa muy ndigal lii sëriñ bi ba mu koy wax dégg ngeen ko seen bopp noo yéen ko ànd ndax kàddu gi fu mu àgg yéen a ko fa kon nag yéen xam leen ni ñoo yéen a ànd liggéey bii lépp lu si waroon njabootu Cheikh Rafal gi rek war na leen si yéen fu ngeen mën a féete nag si organe bu ngeen mën a nekk kon ñi ngi leen di sant si turu sëriñ bi tey sàkku nag ñu ànd ko ak yéen euh, Al Mouridiya ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp mënu ma koo lim organe yi mat nañ fanweer ñi ngi fi li lu ñaan di ko sàkku si yéen mooy lii di ndamul sëñ Touba. muy nu egg ba si dëkk bii doo fi doxati mukk ba gis luy nuroog war ma ju ñu xotti loolee yéen mooy seen mission principal seen mission première ni mu doone sunu mission ñun taalibe yi ndax gënuñu leen a doon ay taalibe ñu ñaan di sakku nu ànd ko bokk sàmmandoo ko bokk téye ko bokk waggarandoo ko ba ni ko sëriñ bu bëggee mu amee ko ni kon foofu laay wàccee sama kàddu ah di jox euh, sëriñ Fallou Galas mu introduire sëriñ sëriñ maam Cheikh su ko dee sëriñ maam Cheikh tëj waxtaan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 yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sëriñ bi ginnaaw bu sëriñ daam sooda doxee ci ndigalul kilifa yi wax ne sëriñ bi dafa bëgg mbooleem taskati xabaar yi yi nekk Touba ak li ko wër ñu maasa daje fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall bi ngir mën a jot li ndigalul sëriñ Touba li nga xam ne moom la jox maam Cheikh Ibrahima Fall loolu di ak cant yàlla bu rëy ci bu ñu xamee ne sëriñ Touba mag ñu bari ñu ngi nettali naan da daan wax Baye Malick Ndiaye naan ko jëgal yëgal fere yi Baye Malick Ndiaye bu tëggee xiinam nga wax ne ki ñuy xettali tey ak ëllëg nee yaakaari jaam yi nee na loolee bu ñu yàlla dimbalee Baye Malick njaay moomu am taw feex ju toll ne daan jottalil Sëñ Touba may ko maqaamam mi mu am. ñun ñuy yëngatu ci presse ñu toog bañ nañu kaay leen jotti leen sëñ Tuubaa ay kàddoom day mel na sof nañ fa Baye Malick Ndiaye sa form yàllante woon nag presse bi xam ne mission liggéeyal sëñ Tuubaa lañ am ak di jottali kàddu sëñ Tuubaa gu maam Cheikh Ibrahima Fall di wax mu jëm ci ndigal ndigal loo xam ne ki fekkoon àll bi lëndëm mu jël xeppam la gor ko ba mu leer lëndëmuk saayiram googee mu leeral bam demé ba ba lëndëmuk baatin nar ci tabbi mom la serigne touba ñëw ne ko kaay wa hajjatan liman bi do fil irtada waaye wa hujjatan ala mukhalifin xadaa pak bi nga xamne nak moy moy moy daj tànku ku na a ndigal yi pak bobu moy Cheikh Ibrahima Fall motax serigne sëriñ bi jox ndigal li sëriñ Amdi mustafa mom serigne Modou Mbenda mo woo ay rakam woo ay jarbaatam woo ay sëtam woo képp koo xam ne sa bopp bi nopp buy déglu ndigal a nga ci mu la kaay dee ñu ànd leeralal Serigne Touba dëkkam bii te kenn nattam wut ne dëkk bi de bi ko Serigne Touba di leerlu lëndëm a ngi ci ndax lim ñaan ci mat labul faw seen yi loo ca gis rek bayit wa ko topp day dàq wa ca des bam tàmbalee ci wa maskani salim min al fujaari wam nun ala ahli bi ma in bam data ka ñaan dox muy daw da ñaan sun borom gennel ko say say yi ne ci bir rek li lolu nak serigne Abdou Lahad daf ci joxawon ab bind bu leer serigne Abdou Lahad bi mi téré ci dëkk bi di Touba ta téré bi jéggé ab dayo da dem bam yag mu jëlé ay gendarme yo xamné ne ay xaj lañ andi len ci dëkk bi tok ci penku jumaa ji ñoo ñuy wër dëkk bi am ku dik na ko xaj ci bir dëkk bi mu ne ko xajay xam morom ja té luy tax dëkkub serigne Touba bi leer ba ma ca dara kon leeral dëkk bi fa mu àggoon sëriñ Touba bañ demee ba loolee lëndëm googu dellusiwaat la sëñ bi nag fob yëf yi yat wi jox ko sàmm bi kan mooy sàmm bi mooy maam Cheikh mu Fall mu yor yat wi ñu fas yéene jëfandikoo baat bu sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha wax sëriñ Mountakha daf ne ko baax laay waxal waaye ku bon damay jëflanteeg moom moo tax sëriñ am di wax ne ñi baax laay labiranteel waaye ñi bon damaa fas yéene jëflanteeg jëflanteeg ñoom Baye Fall yi nag jóg wax ne. buñ sañoon lii leen sëñ bi di tereloo duñ ci jàpp kenn duñ ci gis kenn loolu mooy yërmande ju yaatu buñ sañoon duñ jàpp kenn am na kuy rond ngir bëgg a jàpp am na kuy xool ngir bëgg a gis ñoom nag liñ dëkk a tàmbalee mooy buñ sañoon buñ xoolee duñ gis buñ dee wër duñ jàpp kenn loolu mooy dañuy fekk nit ñi jub kon koo xam ne xëtt nga ndigal loolu ba suñ borom dogal na la ñuy tere agsi ci yow rikki waaye kilifa gum mën a doon tene ci Tuubaa tey jàppale sëñ Muntaxa boroom kër bu ne ci Touba tey jàppale sëñ Muntaxa rikk waaye na nga rus a def intervention ndax boo defee intervention rek yaa ngay jàppale ab saay-saay te ñoom lii ñuy tere lu araam la lu yàlla tere la yonent bi tere ko sëriñ Touba tere ko doomi sëriñ tubaa yépp ñëw tere ko ñu teg ko ci seen loxo ñu dañ ko tere loolu kon rikk waaye képp koo xam ne jàpp nañ ci sa doom daan yan lay teg na ko muñ te xam ne daane àdduna moo gën daane àllaaxira te mën naa am buñ la daanee fii ci àdduna boo ëllëgee yomal fi am kenn du la daan waaye boo tooñee nag tooñ bu jëm ëllëg daanuñu la ko àdduna faw ñu daañu la ko àllaaxira kon Baay Faal yi liñ ñuy dawal mooy daal di ëllëg rek lañ ñuy bañal moo tax daan buñ ci teg na woyof tooy ci kon daje bi moo tax sëriñ Dame Soda lim tere yi yaakaar naa bi mu ko limee nag képp ku ci laalu dara sam xel dal na yaa ngay tëdd nelaw koo dégg aw fitam jóg ci rek daane ci la ñuy tere koo dégg mu yëkkatiwaat kàddu teg ko ci daalam ne ci la ñuy tere faaw kii digle nag bu jógee ka fas yéene xëtt ndigal dana jóg ne ca rajo yi ne ca réseaux sociaux yi di commentaire ak a wax leneen ku ngeen ci dégg nangeen xam ne ko fas yéene xëtt ndigal la su boobaa bu jaaree ci média yéen média yi bu ko kenn jàllale nañ ko ignorer te xam ne kii daa bëgg xëtt ndigalul sëriñ bi lii nag dafa war seex si war kuréel yi war daayira yi buntu kër yi seex yépp dañoo war a xam ne dañoo war a jàppale maam Cheikh Rahma Fall ndax seen maam yi ak Cheikh Ibra Fall ñoo daje woon Mbàkke Kajoor ñoo daje woon daal Mbàkke Bawol ñoo daje Daaru Salaam daje Touba ngir doon wut ngërëmul yàlla kañ doon wut ngërëmam nag moo fi nekk jógatu fi ñu jox Cheikh Ibra Fall ndigal ñoom ñëpp nañ maase sot la Cheikh Ibra ci ndigal li ba mu daan ko ba ko xool Touba la sëñ Touba ñaanoon waccal bihi daal yekkal madina barakatan wa kahbatal masuna boo xoolee makkatal mukarrama madinatul munawwara boo xoolee Tuubaa xam benn pàkk rek kon mbokk yi kàddu yooyu moo tax Baay Faal woote wootee ci ndigalul Serigne Mountakha jaar ci Cheikh Mouhamadul Basir moom Serigne Mountakha waxoon it nag ne ñeenti oto yi sëñ Mountakha yëkkati teg ko ci loxol Baye Fall yi da ko ubbee bunt bi tey digal taalibe bu ko man nga dem jënd oto yet Baye Fall yi loolu ndigal la lu sëñ Mountakha joxe jaarale ko sëñ Basir wax na oto yi bu matoon junni doyut kon nag yëkkati naa ñeenti oto ubbee bunt bi di ñaan fu ab taalibe ne te mën a def ngir jëmmi yàlla nga jënd ab oto yët ko Baye Fall yi ñu jàppale ko ci liggéey bi ndax 313 personnes kat yoo xam ne subaa ngoon dañuy liggéey ku ne xam na ne ñeenti oto mun leen a séddalewu ko ci dëkk bi te dëkk bi rëy na quartier yi bari na te saay-saay si fu ne la ñuy jaar kon war nañoo am oto yu doy sëkk te baax te gaaw ñeme suuf ñeme ay ëkk ñeme ay kàmb loolu nag ñoom ubbi nañ seeni bunt képp koo xamante ne bi daal ndigalul sëñ Tuubaa yi fas nga ci yéenee tàbbi jaarale ko Seex Raay ba oto ñi ko man xam nañ ko ku mënta jënd ab oto te man di joxe gasoil commune bi nee nañ joxe weer wu dee junni yi litre gasoil waaye loolu ku ne xam ne ne doyul ki mën a participer gasoil na xam ne man na maa participer gasoil weer wu dee danaa ca dugal nangam ka mënut loola te xam ne ñii li wër ci àll bi dañoo war di añ dañoo war di reer dañoo war a bàyyi seeni kër dara la nga mën ci participation nga jox ko Baay faa yi ñu di ko def ci liggéey boobu nga mën a waat ne yaa nga sa kër tëdd waaye yaa ngay liggéeyal Serigne Touba ci biir dëkk bii di Touba te la la ko may mooy sa wërsëg ko nekk sa poos te boo ko joxut sëñ bi rek day dem ndax àllaaxira nangu na yóbbante waaye nangu wut yóbbaale loo tee yóbbante ko yàlla da ko fa fekk waaye bu dara desul lu dem nag doo yóbbaale dara ba ci portable bi nga yoroon kon nag nañ gaaw yóbbante suñu alal jaarale ko ci Cheikh Rahma Fall mu joxal ñu ko Serigne Touba kon dañuy bàyyi kàddu bi sëriñ bi sëriñ maam Cheikh bi nga xam ne moo fi teewal sëriñ maam Cheikh Al Fall mu sëriñ Assane Fall mi fi teewal kilifa yëpp waaye di wax ci turu sëriñ bi nag nga xam ne bi mu dégloo kàddu yëpp moom moo ko war a tëj ñun ñëpp ñu maase déglu ko te xam ne ginnaaw tey suba suba la Baye Fall yi dem ci teeneen rikki waaye kuñ fi fekk tooñu ñu la awartiise nañ leen digtal leen ko wax leen ko ngeen dégg waxaat leen ko kon nag képp koo xam ne yaa ngi ci loo xam ne buñ ko jëlee ci yow mu métti la gaawal jël ko moo gën bala ñoo ñëw ngay dem di def intervention ci benn sëriñ ndax kat sëriñ si moom tëj nañ seeni bunt ngir intervention moom fasuñu ko ci yéene def ndax xam ne ñii li ñuy sàmm mooy war may dëkk bi di war may sëriñ Tuubaa ji te kat fa man yu xasib urmatullahi fa huwa xayrun lahu kon nag warmaal lu yàlla warmaal moo gën bañ gaa warmaal kon ñun ñëpp ñu maa si déglu sëriñ maam Seex mu sëriñ Asan Fall bismillahi rahmani rahim barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi nuyu mbooloo mi yëpp di ci jiital kilifa yëpp ak mboolem bokk taalibe yi ak mboolem autorité de police yi fi nekk ak mboolem presse yi ñoo ngi feddali sunu jaayante ak sunu mooy ak sunu wóolu ci Serigne Touba di feddali sunu jaayante. sunu mooy ak sunu wóolu ci maam Cheikh Ibrahima Fall di dellu rekk di wax la waxoon ci njëlbeen gi rek dañoo waxoon ne liggéey bii dinañ ko def ak xereñ dinañ ko def ak fulla dinañ ko def ak fayda dinañ ko def ak xereñ dinañ ko def ak yar ak dinañ ko def ak fulla ak fayda loolu li ma ci joxe lu tuuti rek la muy luñ ci mën a sukkandikoo dafa am benn tubaab autorité coloniale yi dañ ko def la woon benn gëstu ci maam Cheikh Ibrahima mu wax ne Cheikh Ibrahima Fall jëmm joo xam ne la ju jox orma autorité coloniale yépp la waaye nag mbiram lu jar a tey la mbiram lu jar tey la ndax sëriñam boobu di Ahmadou Bamba lu mu ko digal rek dana ko def ñun ñii tamit ka digle woon mooy sëriñ Touba kam daan digal mooy Cheikh Ibra ki digle mooy sëñ Muntaxa di sëñ Touba kam mooy sëñ Amdi Modou Mbenda mu wëlbati ko digal ñu dinañ ko def ci yar ak teggin waaye dinañ ko def ci fulla ak fayda foofu maam Cheikh Ibrahima nekkoon rek nga xam lu ko sëriñ ñan ba musu sant dana ko def ñun njaboot gi yëpp foofu lañu ñu nekk ñu ngi jaar nag ci ndaje bi di wax ne tàllal nañ suñ loxo mbooleem kilifa yi nga xam ne nii dañoo nekk ci yoon wi di tàmbalee ci suñu biir kër kër maam Cheikh Ibra mbooleem suñu mag yi nga xam ne nii dañoo nekk xalifa seen kër wayjur ak suñu doom yi nekk xalifa ci seen kër wayjur ak Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci liggéey bi di leen ci xaar di ci xaar seenu jàppale mbooleem jëwriñ yi nga xam ne nii ay jëwriñ lañu doon ay jëwriñu daayira ak jëwriñu kuréel ñu ngi leen di xaar mbooleem ñi nga xam ne dañoo bokk yoon wi ak Serigne Mountakha di ay rakkam ñu ngi leen di sàkk ci ñoom ñaan di leen tàllal suñu loxo di leen wax ne danañ sàkk ay ndaw ñu ñëw ba ci ñoom mbooleem cheikh yi nga xam ne dañoo nekk ci yoonu murit ñu ngi leen di xamal ne ci liggéey bi lañu bokk te danañ ñëw waxtaan si ak ñoom sàkk ci seen jàppale ak seeni xalaat mboolem imaam yi imaam yi ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne dana ñëw te di leen ñaan ci seeni biiri football ñuy jàllale liggéey bi nga xam ne ndigalu Serigne Touba la wet googu ñu jàppale ñu ci liggéey bi autorité yi yi nekk ci région bi yëpp ak ci département bi ak ci commune bu Touba ñu ngi leen di woo ci liggéey bu tedd bii di xaar seeni jàppale muy préfet ak sous-préfet mbooleem autorité force de sécurité yëpp di gendarmerie di police ñoo ngi leen di xaar ci liggéey bi ñoom sax tàmbali nañoo ñëw ndax ndaje bi sax seen ndaw teew na fi mbooleem koo xam ne nag bonne volonté nga te bëgg liggéeyal Serigne Touba bëgg foo ko jaarale bunt bu yees fekk ubbeeku na muy buntu sàmm war may Touba mbooleem délégué de quartier yi mbooleem daayira yi mbooleem mbootaay yi mboolem bàjjenu gox yi na dinañ ñëw ci ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu àndandoo liggéey bi ñi may mujjee nag mooy askanu Touba muy ñi nga xam ne suñuy mbokk taalibe lañ te bokk ñoom liggéeyu Serigne Touba bii nañ xam ne seeni mbokk taalibe ñoo jub di jëm si ci ñoom ñaar yi ñaari gànnaay lañ yor ci suñu liggéey bii ba ñett waaye buñ sañoon ci ñaar ñaar yi la ñuy bi ci njëkk mooy communication communication mooy benn ci suñu gànnaay yi ba ca topp mooy maslaa maslaa ci suñu gànnaay yi la bokk waaye nag bi mujj bëgguñu koo jëfandikoo loolu ku féeteerlu rekk mooy tax ñu jëfandikoo ko kon ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di xamal ne seen i mbokk taalibe ñoo ñëw ci ñoom te xam nañ ne ñoom ay taalibe sëñ Touba yu sàkku ngërëmal sëriñ Touba lañ kon nag buñ ñëwee nañ ñu yombalal liggéey bi te xam ne seen mbokk taalibe ñoo ñëw ci ñoom maa ngi daanale samay kàddu nag di fàttali li sëriñ Galas sëñ Fallou Galas si la wax léegi ndax bis bisa sax bisu bisu levée la waroon a doon bisub jaayante la la waroon a doon waaye dafa xat te kilifa yi jóge poroxaan te bëgguñu kilifa yi ko war a teewee yëpp duñ leen mën a am ndax màggalu poroxaan bi waaye ñu ngi woo mbooleem koo xam ne nii jàpp nga ne liggéeyal Serigne Touba ñor na la ñu ngi lay woo ngir nga sof ci jëfu Serigne Mountakha bi nga xam ne ni jëf na ko muy jël addiyaam def ko ci liggéey bi. jël nañ ñeenti daamar yu mucc ay yu dëgër jox ko kuréel gi ngir ñu tàmbalee ko moom nag ubbi na bunt kon jàpp naa ne ku bokk ci Serigne Touba rek bunt boobu ubbiku na ci yow kuy seexu sëriñ Touba bunt boobu ubbeeku na ci yow ñi nga xam ne nag dañoo bokk ak ñoom maam Cheikh Ibra waxee su leen ndax ñoom ci biir lañ bokk kon ñi ngi woo ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci jaayante bi di woo suñu mbokku taalibe yëpp ci jaayante bi. fii ñu toog léegi rek jaante nañ fi lim bu takk boo xam ne nii mi ngi ñun kon nag ubbeeku na buñ daanalee kàddu bi incha allah balaa ñu yeewi journaliste yi dana leen jox numéro yi nga xam ne nii ubbi nañ ko muy ñaari numéro benn bu Orange mone ak benn bu Wave ak numéro compte bi nga xam ne nii muy ñetti numéro yoo xam ne ku ko a dugal dara ci jaayante ci liggéey bi mën nga ko cee jaarale ñi ngi yemale foofu kàddu yi tey dellu di sant bu baax a baax a baax di sant képp ku fi teew di xamal ne daal ñun waa Kër Cheikh Ibra nañ ci Serigne Touba am li mu bëgg te nar ñu cee dellu gannaaw li ñu wér te wër ñu nag mooy la Serigne ba waxoon ndigal bu la génnee sa kër moo la fay xaar ba nga dellu si la yebal tam. moo la fay jiitu kon nag suñu xel dal na ci liggéey bi xam nañ ne ndam rek moo ci topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.